salaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo seetaan euh, wasaare TV ak Dakar midi euh, tey ak Click Dakar 221 tey nag dañoo ñëw fii yaakaar na fii ñu xam ne mooy teeru bi tey yaakaar na dalal benn daanaan ko xam ne mooy borom teeru bi muy Maniru Faramareen Maniru Faramareen yaakaar naa kenn du ko présenté Sénégal àdduna tey moom lañ dalal mu wax ñu kan mooy Maniru tey Maniru ñu ngi lay ziar. Ah, bu ko defee maa ngi sant yàlla. Mhm. di sant samay ñaari waajur di la nuyu di la delloo jukkal li mhm. ñooñu nga xam ne sama waaye nga wax dëgg yàlla nga doon mhm. nit koo xam ne mhm. franchement wax dëgg yàlla sa émission dafa jara déglu dafa jara seetaan mhm. waaw ba ma ko waxee nag ma daal si sawar lool ma ne fekk ma fii si bërëb bi nga xam ne moom mooy teeru bi xam ne fii këru ñëpp la waaw Mounirou macha allah ba ma waxee aussi dama nangul ci sur le xam ne maag benn la bokk loo xam ne koo séddoo muy euh, Faramaren bi macha allah tey Mounirou boo doon wax sénégalais man moom xam naa kan mooy Mounir mais sénégalais yi kan mooy Mounir boo ko wax kan lan ngeen di wax. mu Mounir moom Mounir dafa nekk Mounir koo xam ne Mounir dëkk Kees. Mhm. juddoo Kees màggee Kees xam Kees. yàlla def ki nga xam ne moom mooy ndaanaan bu mag bi muy Waly Ballago Seck. Mhm. daan ma fekk sama dëkk biir Kees. Mhm. bu ñëwee sama dëkk. Waly maa ngi ko njëkk a acquérir fuñ naan Enawan. Enewa Enewa moo amoon benn genre piscine. ci Thiès la nekk quoi ci la nekk dimanche lañ daan def piscine party. Mhm. boobu Wally mu ngi doon ànd ak Khalifa Belgique. Jinne Xulle Pam Maodo Mbaye. Mhm. Wally bu daan ñëw danaa ñëw 6 heures maa bi 4 la daan ñëw. Mhm. bu ñëwee 4 diggante 18 heures mu way 2 morceaux 3 morceaux di dem. kuñ naan Duudu Ismaïla Duudu Kan. moo ko fa daan indi. yàlla def daa yooyu laa commencé dugganteeg Wally Mm-hmm. ma xamante kuy waali mm-hmm. waali fonk ma lool mm-hmm. yàlla dogal ba première ñëwam kees énéwan la première ñëwam kees énéwan bi mu ñëwee après ñu xamante mu dem bi mu demee après jinne woo ma ne ma am dama la am ku ma lay am waali waali moo soxla ma ne ko waali mu ne ma waaw ma jël téléphone bi waali ne ma munir ma ne ko waaw mu ne ma à partir de deux heures di def naa la yaay sama waali sekk biir kees loolu 2010 la woon. 2010 la wax loolu. 2010 la ma ko wax. à partir de 2 di. Mhm. yaay sama Wally sek biir kees. Mhm. mu sas ma. ñuy dawal di dawal di dawal di dawal di dawal di dawal di dawal ba Wally war a ñëwaat kees. Mhm. war a ñëwaat Enawa. bi ma war a ñëwaat Enawa mu woo ma téléphone ma préparé. defar ruq yëpp. defar côté yëpp defar bàyyiwuma fenn. sensibiliser Faramareen yëpp. si biir kees ne leen. waykat baa ngi ñëw mhm. waykat bi bu ñëwee mhm. toogoog ñun añandoog ñun daa di bàyyi ba dix huit heures mhm. di départ dem Enewa bu demee Enewa bégal doomu kees daa di talaat otom daa di ñibbi bi ñuy dawal dawal Wally mu ngi njëkk a kees concert bu ñu naan le huit mai deux mille quinze le huit mai deux mu ngi ko joué stade Lat Dior boobu stade la joor bii waa senegal di footballé melul woon nii Wally fa la njëkk foofu la njëkk a joué concert. Mhm. le 8 mai 2015. Mhm. Wally si la njëkk a joué Thiès concert. boobu ñu ngi doon wax naan ñu ngi doon ku naan Papis Niang. Papis Niang Papis ne te mu nekk si fas yi. moo ko fa indi woon. Mhm. maa nii maa ko organisé woon. maa ngi ñoom Baye Ndiaye ñoom Issa Ndoye ñoo ko organisé woon. lépp loo xam ne organisation la woon ay ñoom Ibou Sow Ardo. sama loxo lañ ko teg woon. teg woon ndeysaan Baye nga. ñuy dawal di dawal di dawal di dawal di dawal dawal ba yàlla def kuñ naan benn paa buñ naan Assane Diouf. Mhm. bëgg a indiwaat waali kees indiwaat ko fa. mu ñëw ma Maniang Soumaré mhm. ñëw fa ñëwati fa ab beneen naanaan bu ñu naan dem dëkk kees ku naan ab Ablaye Dieye mhm. moom it indi ko kees ba ñëpp am fitu léegi indi Wally Seck kees te Wally dafa doon koo xam ne képp ku dem di signé ak moom contrat boo signé ak moom contrat ba pare danaan la jëlal numéro Mounirou moo ma nekkal kees. promoteur bu mu mënti doon. bu mën doon biir kees. biir kees. même bu la xamul danaan la. même bu la xamul danaan la jëlal numéro mu niiru. moo ma nekkal kees. moo ma nekkal kees waxal ak moom. Mhm. bu kooku signé ak Wally contrat ba pare rek kooku daf may woo téléphone. ne ma a ah, san kilifa moo ma boole ak yow. Mhm. ma ne ko sama kilifa mu ne ma waaw ma ne ko kat mu ne ma Wally. Mhm. ma ne ko ah bon mu daan may woo ma di ñëw. mu ne ma kat damaa war a indi Wally kees. bis bi nangam ak lii ak lii ak ak waali moom it day jël téléphone am. Mhm. képp kuy kilifa biir kees kuy xaritam mu woo la ne la jàppaleel promoteur waali loolu mooy fooram waali dafa doon koo xam ne du mhm. seetaan promoteur. Mhm. waali du seetaan promoteur. waali bu fexee ba seen yow contrat. dalay lay accompagner. da lay taxaw. dalay lay jàppale. da te da lay nga dem. te day jënd ay bee. may ko ay nitam. artiste buy def loolu sa mu na. si promo si artiste boo xam ne da ngay ñëw promoteur bi ñëw si ñëw contrat yow bu ñëw contrat amoon leen loo loolu def ak moom loolu ñëw wayal ko daal di dem déedéet mhm. da laaj fu bis bi toll mhm. ak nu bis bi demee ak nu bis bi am ni bis am ak ni bis bu am si am mu jël téléphone am woote ñu rek la boobu mhm. loolu mooy fooru waal yi loolu mooy fooru waal yi am na artiste yoo xam ne dañuy signé yow contrat buñu signé ba ci seen xaalis pare nañ ci kon pare nañ ci yow doo jour ñëw pare ci. merci loolu doxalul euh, événement. déedéet jàppalewul promoteur te nga wax wax bu am solo trop. muy bi la waari woowee ne la. Euh, bis ni ki tey yaay saw mayru Thiès. waaw yaakaar naa yàgg na. yàgg na su doon waali day nekk wax boo xam ne bu waxee mu dëñ tey loolu du am. loolu du mës a am si àdduna dafa mel ni moom kon lu mu wax rek xamal da koy confirmer. da koy confirmer merci beaucoup. parce que moo tax boobu léegi mu jàpp la. boobu ba léegi si la ma jàppee si la ma nawee si la ma fonke ba paali waali dafa mën nitam mhm. foofu laa bëggoon ñëw dafa mën nitam waali mooy koo xam ne mhm. nañ ko gis ni ko yàlla def rek mu noppal ñu dëgg la waali man gëm naa ni waali nekkul waykat déedéet man am naa yàqi moom waali nekkul waykat wallaay wax boo ko tiimee di nga xam ne du àndul ak way kase am na leneen loo xam ne moo nekk si boppam mais loolu noonu am na benn way boo xam ne gars yi nañ siy bàyyi xel waalidu neenu neen maa ngi ñëw maa ngi ñëw waalidu ah. neenu neen fekk ma koy waxtaan waalidu neenu neen toujours am na benn woy boo xam ne waali da ko woyoon deen ko fàttaliku voilà waxoon na waalidu neenu neen voilà loolu noonu dafa am solo trop ñu koy ko loolu dafa jax na leen nag waaw loolu da ko woy ba pare ma xoolaat ko bi mu ne waalidu neenu neen ma xoolaat ko xoolaat ko bu baax mm-hmm. daañ ne ko a ah, nee nga doo neenum neen waaye say fan si moom it duñu neenum neen dëgg la ndax yow lu la lu la lu la lu la xosi mm-hmm. xosi ñu lu la dal dal ñu mm-hmm. moo tax it mooy koo xam ne. Mhm. champion la. champion la. gaynde la. gaynde la te Wally moo nekk nit koo xam ne lu ñëw mu dagg ko. Mhm. amul luy ñëw mu naan la xaaral. déedéet gor la luy ñëw mu naan la taxawal. amul luy ñëw mu naan la déedéet du mhm. lu ñëw mu naan la acca. lu ñëw mu naan doomu aadama yi. loolu foofu la doomu aadama. mën nitam respecté nit mën nitam mën mën mën laale ni mu mën a nitam lan lan moo waral lool mën nitam Wally day fekk maanaam fu amul dara. mu duy ko ba mu fees. merci beaucoup lan mooy secret waale ci loolu. sa loolu mooy parce que tey boo xoolee ñuy di am loo xam ne waale loo ko. ma wax la lan mooy secret waale ko la lan mooy secret waale. Mhm. waale du lekk bàyyi nit. mënu ko. Mhm. boo demoon këram tey da ngay tiit. plus de quinze personnes ñooy tiim benn bool. dëgg la ñëpp am na ñoo xam ne yi tiim waale nii. saan taxaw. bokk ak ñoom toog nii laa la dëgg la ñu tiim ko di lekk ñu tiim ndeysaan setu yeneen bi jabaram ju baax. jabaram ju teg ñu tiim leen nii ju baax jooju. ñuy def ñuy tiim nii ñu tiim leen nii di lekk. waale dafa mën a séddoo. Mm-hmm. waale ànd na moom benn dix-huit heures ñu dem benn kër kilifa kilifa bi jox ko presque xaalis bu bari du ma som mu partagé ko diko ko partagé di ko partagé di ko partagé ba bu muy dugg këram cinq mille ko topp. Mhm. dinaa ñëw foofu. deuxième lay jàppale. Mhm. nitam koo gis si àddina koo gis si àddina am na si turu waali oto. Mhm. am na si turu waali terrain am na si turu waali passeport am na si turu waali xaalis am na si turu waali sax. jigéen bu am xaalis ñëw di la teral. kon ku mel ni dañ ko war a def kon nag kooku noonu moo wax la loolu mooy fooram. ku koy xaar si gaalu xaj doo ko fa mës fekk si àddina mhm. waalo ñun suñu kilifa la mhm. du suñu waykat suñu baay la mhm. dama koy wax di ko waxaat chaque jour ma wax leen ko fi nga waxee sànq rek euh, doguma la fi nga wax Wally euh, jox nañ ko xaalis kilifa gu mag jox na xaalis wala moo kii da ko da dem bay abaat bu joxe lépp mais am na ku jage ci moom ma wax turam man tam nee na ma Wally ànd naa ak Wally ñu jox ko am ku ko jox kilifa ku ko jox 3 millions damay wax somme bi avant ñu egg kër Wally Wally na lépp ba di ko ba di ko abaat moom mi àndal. dëgg la pour joxe man mii def na ma ko. est-ce que loolu yow man mii def na ma ko. nit ku gore du ma loolu man mii def na ma ko nit ku tiit du ma loolu. man mii def na ma ko xol bu rafet man mii du ma loolu. man mii def mu neexee man mii def na ma ko. ànd nañ maa mu yëkkati xaalis bu bari 400000 jox ma mu séddale xaalis yi mu yoroon yëpp ba 400000 ma yoroon dama ko abaat jox ko ay nit ay maire. Mhm. loolu joxe moom. jëriñu ci waxtaan ci pour joxe ak def lu baax ak social yaakaar naa. jarul ñu ci wax waxtaane Wally yaakaar naa jarul ñu koy waxtaane mais nit ku mel noonu est-ce que ñun Sénégal tey euh, Wally du malien du gambien euh, gambien la sax parce que macha allah gambien dañ ko bëgg waaw surtout foofu am na yëpp ko bëgg nag surtout foofu mais moom dëkk Wally la bu ñu nee Sénégal première dëkk Wally mën nañ ne deuxième euh, dëkk Wally gambie la mhm. mais Wally du malien du guinéen mais sénégalais la te tey waxuma la ñooñu de mais États-Unis tey bu ñu sañoon tey Wally nekk seen doom tey juddoo ca réew ma. dëgg la muy suñu tiisal ñun Sénégal. dëgg la mais lu tax ñun sénégalais yi ñu koy ŋaññi di ko wax lu bon. waa nag ma wax la lenn. Wally dafa dondu yenent bi. sallallahu alayhi wa sallam. Wally dafa dondu yenent bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo ni tey tey émission bi taxawal tey émission bi da gudd xam la moo tax. waaw li nga wax dafa grave Wally dafa dondu yenent bi. waaw te dinaa la wax ay firndeel ci moom tey. waaw Wally. Mhm. man am naa yaqiin ni dafa dondu yenent dafa dondu yenent bi si jikko. sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. bu daan romb di dem jàkka dañ ko daan sànni bu daan julli ñu ko daan sànni ñu fete fex fex xeetu mbugal boo xalaat si àddina mbugal nañ ko ko mm-hmm. kon nag mm-hmm. bu ñu bëggalee buñ bu ñu bëggee mbugal ma si bige si bige maar ndeysaan faaw ñu nangu senegal ñu nangu Sénégal mënuñ mënoo mënoo ba ñëpp bëgg c'est normal. dëgg la président de la république mooy président réew mi. wallaahi ñu ngi koy sànni xeer mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy lépp. te mu ngi dem rek di liggéey mu ngi dem di sànni xeer. ça te mënoo wax a wax a wax opposition dafa am si réew. dafa am ci réew. waykat bi si boppam opposition bu graaw ko topp. mais nag mu ngi bëgg ëpp opposition bi ko toppee amul ben ruq boo xam ne. mënuñoo ak sax si ñun wax balaa ak waykat bi. waaw mënuñoo dëgg nga ne mënuñoo. mënuñoo ak si ñun nii. <laughs> wax balaa ak waykat bi kilifa te mooy koo xam ne nag. Mhm. boo ñëwee di ko waxu opposition bi. Mhm. dana laan génnal sama kër. wallaahi xam naa loolu. barke Serigne Saliou. bëggul wax ku ko indil wax. bëggul ku koy yóbbul wax boo ko yóbbul wax di ko indil wax yo sa ngay gëj a gisatee. waaye sa ngay gëj a tee ñam. sa ngay gëj a tee sol lu rafet. da lay yar kooku kenn du moom. da lay yar la faramaareel ñun. ko Mm-hmm. li nga waykat yooyu ndaw yooyu noonu nekk dëkk bi di wër-wër yi di tartar yi. mënuñoo mm-hmm. ak si ñun waxuma laak la gël la la la la la. gël doon la la gël doon booy. la musique ki nga xam ne moom la fi yàlla teg. dëgg la moom la fi yàlla sampu. nañ ko nangu ñaanal ko. ku ko nangul da ngay sonn. le centre la peuple li may wax. le centre du peuple le soir du peuple. waali yàllaa ko def. waali li kenn amul si àddina la waali am. Mm-hmm. ne lan. lan la waali am na kacapan. Mm-hmm. am na wuyu. waaw am na jamkat <laughs> am na caga am na dompantekat. <laughs> am na bay faal am na raykat. ku ci te yooyu yëpp jugguñ te bu bu bu jugee. duñ te yooyu ñëpp moom moo leen di dalal. nemu barke Serigne Bamba xam naa loolu. barke Serigne Bamba xam yooyu yëpp ba nga si réew mi toog di xaar. duñ mos a bis bu nee acax. di nga gis loo xam ne doo doog gis sa defee neneen beneen méthode. bu dul voilà yooyu yëpp moom moo naan. Mm-hmm. taxaw leen leen xaar noonu lay def abi bëggul kuy tontu nit bëggul kuy wax ak nit. boo xoolee waaye xool la rek dama seetlu benn jour action. dama seetlu dama seetlu benn jour action bu garaaw. Mhm. ñu nekk këram di añ. bi nekkee këram ñu ñëpp di añ. am di mi ñoo ñëw këram. ndeysaan. waaye di ko saraxu naan ko ngir yàlla ak yeneen bi am di. bàyyil wax ji si tappale ngir yàlla bàyyi lépp mu sedd defal sa émission. Mhm. te bàyyi leen ñu terte rek. wax wax walaay walaay walaay loolay wax sax dur yi Sidi Diop mii ngay gis nii. Hmm, Sidi Diop waaw. booy Sidi Diop mu ndaw bi Sidi Diop waaw ah, booy bu ndaw bi. booy bu ndaw waaw. moom si boppam. Hmm. danaa ñëw e studio bu wàllu daal répété muy attaaya. muy attaayal waali. muy atta non att du attaayal waali Cheikh Mbacke la daan attaayal. Cheikh Mbacke benn fecc Cheikh Mbacke fecc kat. moom Sidi Diop daan attaayal moo wax la ko tey. loolu de maa ngi koy doog dégg tey. man maa la koy wax tey jii. du attaaya munul ak si munul ak si waali Cheikh Mbacke di ko naxee dina kaay attaayal moom présenté la waali. moom Sidi Diop wékk tey booy Sidi Diop mi ma lay wax tey jii boobu mu ngi sol ay plastique yow de xam nga. mu ngi sol ay plastique. di sol ay di sol kaki. la. di sol kaki kaki. bu ñëwee. seex Mbacke di ko nax. Cheikh Mbacke di ko nax di ko attaayaloo. pour dalal pour présenter ko. pour pour pour pour ro pour ropes ko. pour mu merci beaucoup. ma wax la ko tey. tey loolu dégg. tey laa loo koy wax tey. dëgg la. Euh, beneen wax ji. moo mhm. waxaat leneen. Mhm. Euh, soulager Bouba Diop. soulager waaw mon ami Boo Diop sama xarit. amul lu ko Sidy Diop woowul téléphone. Mhm. ngir mu may ko ay sañse. Bouba Diop benn soulagé. waaw soulagé moom moom sañse moom ci la ci la tegoon ah. tànk. te ñun sax wax jooju sax wax jooju sax jarul sax ñu koy wax. ndax jarul débat waaw jarul mais pour pour wan rek wan leen rek pour wan leen la ça veut dire que. Ah, dañoo toll jamono koo xam ne. Mhm. Ah, foog ñu leeral yenn faaw ñu leeral yenn ñi xamul xam ñi xamul xam. voilà c'est ça en fait loolu la émission yi loolu rek la. waaw pour ñi xamul xam. barke yi nit yàlla Muhammad le Gueule booy Boy de la musique mhm. fi ma ko teg. Mhm. teguma fa benn mbindeef. benn mbindeef ci ni ma koy xoolee. Mhm. xoolee wu ko benn mbindeef si addina àdduna fi ma toll si moom. tollee ku ma fenn si moom si. àddina àdduna mais dëgg la xam naa ci dara parce que toujours ñoo ngi ci programme yi fu nekk mais damay gis Wally bu yéegee su sen ni ngay def dooroon nekk mëniru beneen mëniru ngay nekk. waaw ah, c'est normal maanaam bu ñu paree nag ba pare nag da ngay changer nekk keneen mais bu ñu paree. bu Wally tëgg nekkatoo Mounirou beneen keneen ngay nekk mais ñu gis Wally fekk la Thiès fekkaat la Thiès fekkaat mu dem am boo xam ne nag dafa touché na yëpp mu fekk la cees ngay liggéey di liggéey ba damm jur boobu sa loxo damm. Ah, dam baayu noonu dam boobu dinaa la ko wax. lu ko dam bi naa wax ko waral. Mhm. Wally dafa war a jugee ayra laaw. Mhm. ci Thiès. Mhm. am am am ku bëgg ku bëggoon ku ku ku doon tëgg Wally. te bisu bisu bisu concert bi jiitu bisam. Mhm. mu xam ne bis bii kat bu rombee mun na sax mun na tiit si après si bisam. Mhm. ma ne ko déedéet du noonu Wally rek réewum ñëw léppay dox. wallaahi mais xam nga mbiru Wally moo am ànd ak ay ay ay ay ay. ay ay bagages. Mhm, am ñu wër si dëkk bi naan concert bi amul concert bi amul concert bi amul. yàlla def ma takk sama gàjj. takk sama bop mhm. takk sama tànk takk sama ndigg. moom ma yaasin may si biga may mu mu jox ma xaalis bu bari. Mhm. ak mën a demal ak nga dem liggéeyi. li ma li ma tibal de. yaa may euh, ma ne ma demal. nga dem liggéeyi. ba léegi jeexagul. ma ne ma demal nga dem liggéeyi. Mhm. ma ñëw liggéey. laa dammee dammee wu ma biir kees de. Tiwaawoon waaw laa dammee. la ma waral damm bi Tiwaawoon. li waral damm bi. camion bi laa nekk nii. Mhm. mooy camion caravane camion caravane ma xam ne damaa euh, loué sunu jàmbur. Mhm. benn baaful bi di bëgg a wadd. ndeysaan ma xam ne bu daanoo. Mhm. dina indi ay détails. yaraa nga waaw ma ji ma koy xëccanteeg moom. sama lii nii dal si kaw tali bi. ay bi mu dalee si kaw tali bi. yóbbu ma urgent directement hôpital bu Tivaouane. résonance bu Tivaouane. ñu ne dañ koy tabax. ndeysaan kuñ naan. benn nit ku baax ku dëkk Tiwaawan ku tudd Ngumba Anta Diop la Njaay ndeysaan moo ma jël yóbbu ma fayal ma mhm. wax dëgg yàlla bi ma jëlee fayal ma après ma daal ñëw kees bi ma ñëwee kees concert bi des na deux jours mhm. bi mu desee deux jour matériel bi yëpp maa ko war a dem récupérer ji te boo fekk aw ma benn équipe hmm? équipe boo xam ne ñëpp dañ doon xaar bis bi rek pour ñëw taxaw mhm. ndeysaan may dégg bi concert bi desee deux jours. yaa gaynde dañ jour concert bi si guddigi bi ñu ne suba la concert si guddi gi ma jël benn camion sama loxo ngi damm ñu tabax ko ma jël benn camion fexe bu ñaari booy yab si presque quatre cent barrières su may yëkkati barrière sama loxo bi di diis. Mhm. yaa may dégg. ma xool sama loxo mu xool ma ma jël benn. paaka bu saafara ma xotti bi ma xottee. ma dindi tabax bi sànni fale allah akbar band sama loxo noonu. jël benn piir dugol ko si. di liggéey ak sama loxo. gëm-gëm ak dëggu. biñ ne concert bi con jour concert bi si jour bi. waali oh. jël sama jël wooma. soxnaa mu njëkk a woo téléphone. soxna ay dara ndeysaan dinañ ci ñëw ndeysaan. soxna. Mm-hmm. ay quatre heures la ma soxna woo. ma papa ne ma mu neex ma ne ko ça va mu ne ma dégg naa. dëgg la dama def benn frature ne ko waa dëgg ma def frature. soxna ma fan la ma ne ko sama loxo bi. mënu mm. ma mënu ma massa mënu ma massa mënu ma su sañoon nag nga bàyyi xale yi ñu continuer liggéey bi nga dem toog ma ne ko yàlla tere dama koy continuer ba à la fin mm-hmm. ma toog diggante dix huit heures gaynde gi champion bi mm-hmm. ki nga xam ne bu la xoolee nga xool sedd mm-hmm. bu la gisee sa xol dal bu la xoolee nga am nga am nga am nga am nga am xol bu nga nga nga kontaan rek mu ne ma carte téléphone oh. ne ma arrêté liggéey ma ne ko yàlla tere. da nga maa jox réew. dëkk la jox trois département de Kees la Mbour la. Tivaouane Pout. ak bii Kees région bi muy Kees. da koo teg sama loxo bàyyi ma ak ma travaillé ko ma jox la preuve. jàmm nga yem. yaa may dégg. Mhm. da ngay dëgg waay. Njaga woo ma téléphone ne ma ñaata ne la ñuy defar. ma ne ko Njaga mu naa ma ne ko loo mën a defar si bii defar si yëpp ay jeex. waaw Thiès boobu moom amatul moom. njëkk a ne ma ah bon franchement parler fa la ma fekk njëkk a ne ma ma ko defaral. mësul am Thiès boobu ma ne ko njëkk defar njëkk a xam defar. vingt mille bii la defar. Mhm. bi mu defaree vingt mille bii six mille bii ah? defar. trente six mille mu jeex tàkk amul benn bii bu desee. ci instant bi sax kay man kay sama. ma compté 37 millions. teg ko si loxo njago oro. li boobu loolu lañ gagné foofu. moo tax kees benn kees kees benn dëkk. non Thiès Thiès Thiès Thiès Maniru moo ko moom. yaa may dégg. te bu ñu nee Maniru moo ko moom. waali bi mu ñëwee kaw seen. Mhm. bi mu ñëwee ma daal di yéeg. bi ma yéegee bi ma toogee mu woolu ma. ma mhm. ñëw bi ma ñëwee mu ne ma sama soyoon nga wàcc si suuf. nga toog mën a ko dee malade yéeg kaw seen mu mu mu sol yëreem boo xam ne moom mu gën a fonk si mm-hmm. àddinaam parce que après nga boo xam ne dafa am ñaqam yëreem boo xam ne da koo da koo da ko da ko da koo bëgg mu sonni laafa bi mu soloon lépp laafa bi image yaa ngi noonu boobu mu ngi ko yëre boobu mu ngi ko defaree Angleterre mm-hmm. bi mu ñëwee benn yoon la ko sol bi mu ko solee mu summi ko Cees la ko njëkk a ko njëkk a solee summi ko jox ma ko summi laafam jox la ko ci kanamu image yi kay image yaa ngi ma jooy waaw foofu da nga jooy. xam lu tax ma jooy. Mhm. ndax Wally dafa doon koo xam ne li ma def moo moo moo moo dàq bu may ma ay milliards. ndeysaan Wally sama li ma li ma defal moo ma ëppal milliards. Mhm. bu teewul milliards nii jox ma. Mhm. ak lee ma jox nee. loolu moom ma ëppal ay milliards day jeex ma xamal la sama loxo bii ma wax ba tey mënul tàllee ko. non dëgg la ma ne man xam naa. yaa may dégg yaa may dégg. Wally way ma. lu waaye ma lu rëy mu niru borom Thiès Mbaye si Ndiaye sa ginnaaw naan wallaahi mbay si Ndiaye ndeysaan Baye Fall ña doon wax naa ko bu ko mënoon du ko def bu ko mënoon du ko def lii ak dégg Mbaye si Ndiaye ma def ko normal <laughs> ndeysaan bi ma ko defee normal mm. yaa may dégg mm. waali kontaan si man dëgg la ba mu ñëw bu mujj bii mu daal di ñëw bi mu ñëwee daal di may booleeg promoteur yi ma defaraat bi ma boolee promoteur ba si barki démb ak Ndiaye bi ko Ablaye Dieye mi nga xam ne si gi jot na di camp di politique bi mu ko woowaatee téléphone ne ko dama la waat kees. Mhm. may waa kees concert gratuit. Mhm. jabaram moo moom woo téléphone aram ne ma yow yaay nekkal waale kees yaay ñëw kees toog yaa mhm. koy liggéey. ma liggéey ko ba mu mat. macha allah kon nag. dañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. yàlla ko jàmm mhm. dañ ko ñaanal yàlla defal ko tawféex. macha allah waaw. xaaral euh, naa li nekkoon soxal yëpp wax nga ko tey pour ñi xamul ñu xam kan mooy Wally ak kan mooy Mounirou. waaw ak Mounirou nan la duggee ci Wally. waaw ak Mounirou nan la ba pare nag mu boole ma si estafam damay dama am kase de. ma xam loolu. dama am kase concert dama am kase soirée. xam naa lépp. concert dama am kase trente mille. xam naa bul soirée dama am kase. <laughs> dëgg dëgg daf may fay. da fay xam tey même bu ma fayul. Mhm. su ma daganteeg moom ni may dem. waaye sama kër gi ngay gis nii. Mhm. may nekk nii sama kër gi ngay nekk nii. waali si boppam. Mhm. moo may jox sama salaire kër. moo wax leen ko tey nga xam ko moo koy fay. sama salaire kër. waalee koy fay bi yaa gore yaa mën sa nit. waaw. l'homme social. kenn du moom. ken du moom barki Seexul Xadim. waaw xam nga ñun dañoo am dañ ne boo dee ki julit bu ni ko defee lu baax da nga ko koy wax mais nit ki boo bu ni defee lu baax ñu wax ko nga ne dafa far wala affaire yi mais ku fi def lu baax dañ koy wax. waaw ku fi def lu bon nag duñ ko wax de mais dañu téye suñu làmmiñ mais Wally day def lu baax dañ ko war a wax pour ñeneen ñi nga xam duñ def lu baax di ko di ko tey. c'est que Wally dafa am lu baax sax boo koy wax sax bu yàggee da ngay sonn ndax da koo def ba pare. jeex na. bëgg Demba Ndiaye xool li mu def. a Adja xaar may ma jaaga. wallaahi. mu dem seeti ko waxuma la Sénégal àdduna yëpp. di ko di mu fa la dem. àdduna yëpp di ko rafetlu mhm. la dem. wala ma fekk. seeti leen barke Seexul Xadim muy daw yaram. da mu ngay préparé Gambie. wax na ma ko. la fa ñëw Gambie. moom bu demee Gambie. day seeti jigéen ñi nga xam ne lii na téye. ndeysaan waaw mois de mars bañ koo génn dëgg la. waaw bëggul mois de mars bi da koy wane nag Gambie ak Sénégal nee na nii la ko bëggee. non. xam naa demee mois de mars bu demee Gambie incha allahu rabbi bu nee tak Gambie day seeti jigéen yi nga xam ne téye nañ leen. ci kaso bi bu paree foofu dem seeti xale yi nga xam ne amuñu yaay amuñu baay. parce que foofu laa bëggoon ñëw sax parce que mu ngi war a tëgg sax ñetti date Gambie. waaw benn bi mu ngi koy tëggal xale yi. waaw day teel a demandé yaakaar naa. waaw waaw ay 18 heures 19 xale yi. pour xale yi waaw. kon xam nga ne kooku fonk nit. waaw ku dem bay fàttali ko ay xale. waaw ah. waaw mais kooku kooku lan nga. waaw mais lan nga mais. te te moo ko leen waale bi mu wàccee gàmmeem bi mujj ni bi mu kaw cen mhm. si la ko promoteur bi joxaat jox joxaat yi. kafe xam naa loolu Amet xam na loolu demal walaay bi mu wàccee lañ lañ lañ signé contrat bi décembre bi ñun waale xam nga ne kon ñun ñun moo wax la tey nga xam ko si àddina waali sekk wax ji may wax ni ñun waale lañ bëgg bëgg ñu kenn kuy dox si àddina yow nga wax da nga naan àdduna bi waale lañ bëgg xanaa xamoo ñi ŋàññi waale sax di ko wax guddeeg bëccëg waale lañ bëgg boo xaaree seen xol tey wale nga ci fekk tey xolal noo du ma wax sax garaawul Euh, Maniru tey euh, yaakaar naa li nga nekk sa xool boo ko génnee ci wàll tey day duñ fi jógee tey ñu dugg tuuti kenn ko xam ne yaakaar naa kenn mësul def émission ba tudd ko waaye dama koy tudd mhm. muy sama raq di lépp muy soxna ay dara ah. jabar Wally Seck soxna Wally Seck parce que maa ngi rek kooku noonu ma wax leen tey lu garaaw kooku maak moom ñoo bokkoon benn koñ barke Seexul Xadim ku dee ak sa bàmmeel mhm. muy xale bu yaru macha allah xale boo xam ne lu sigi soxna Aïdara bu dégg li muy wax ko xam moom boo ko tegalee dina xam ne Irel la. muy koo xam ne demul dikkul ku yaru di seetu yeneen bi nag. kon moo tax ma ne tey Wally Seck barki Seexul Xadim soxna Aïdara rek moo waroon nekk soxnaam te nekk na ko lii rek moo waroon nekk parce que Wally dafa nekk koo xam ne. dëgg la du ma ne non. kooku naa la may na du ma wax si moom lu bari. ndax mhm. booy wax si dañ ko ñaanal rek wax si moom lu bari doo fi jugee. Mhm, dëgg la ndeysaan. ñëpp ñëpp la respecté si àddina. kooku noonu la ñëpp la bëgg. seet yeneen bi la ñëpp la bëgg boo ñëwee nag lekk la ko jox bu la joxee moo jàppale waay jox la tey bu neex mhm. boobu wallaahi naan barke yàlla su meloon nen ni kenn waali xool kër ñi ñoo këram waaw waaye nag moo waxaat la leneen waaye moo waxaat leneen mhm. ayo gën gis nga la gëldoon booy li mu wàcc barki dem waay yow waay yow wax ko askan man gis naa ko xanaa ñeen ñi ko koy wax ñeen ñi ko corona mu ngi ci suuf terrain <laughs> am na bu ndaw am na bu mag bu xale di jàng <laughs> non bu am na Rolls Corona bu ndaw am Rolls Corona bu mag Rolls Corona bi. waaw wax la million bi 350 millions la ko jëndee mu dédouané ko 200 millions. waaye wax day oto bi rek caabi oto bi rek 6 millions la ko dédouané Moustapha démb wax la ma ko 6 millions lañ waane caabi oto bi buñ génnee si Rolls Corona ay may baat ay 6 places may baat ay 7 places may baat xale yi rek bu ñuy dem may baat moo leen yóbbu. la Golden Boy de la musique sénégalaise nan leen ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ñun moom la ñuy àndal ba koroog ñuy sàngoo suuf luñ si góodee gar nañ jaral nañu ko si àddina. mais waaw mais Maybach mais sa boy bi may Maybach la yóbbu faayam de. koogal la ah Maybach ki doon ki ki ki doon ataaya Cheikh Mbacke. yi gis naa dafa mel ni li mu yor du ma ah. ah. mais xam nga ñoom seen patron. ñoom dégg naa dañoo am patron boo xam ne. moom day xëy di liggéey di suba ba ngoon te li muy liggéey dara du wax li kan mooy sa mbaaru fu kan mooy seen patron mooy kan sax. ah man yow mi ko waxee xam nga ko man xaw ma ko de. man de xaw ma kuy seen patron xaw ma ko de. Wassou Del Musique. may bat dafa am may bat dafa am met bet dafa am. su mhm. yóbbul met bet foofu met bet. ah met ah, met bet dafa am may bat ak met bet. ah nañ xoolaat. met bet. na yóbbu. ah xaw ma de ndax gisuma ko mosuma ko teg bët kooku mosuma ko teg bët. ok mosuma ko gis sama àddina. image rek ngay gis. image am rek laay gis. intéressé wu man waale ma intéressé. ba mu amee waale am waale waale ku am. xooloo leneen waale rek waaw ku am waale